tey li ñu fi dajale mooy du ma ne sargal waaye jox ñi nga xamante ne nii ñooy fukk ak juróom-ñaari laboratoire yi nga xam ne reconnaitre nañ ne dañuy def liggéey bu mucc ayib ci domaine bii nga xam ne mooy domaine BTP te kuréel gii di LNR BTP nga xam ne kuréelu état bi yàlla def mu nekk ci suñu tutelu ministère nga xam ne mën nañu wax ne mooy autorité de régulation bu domaine laboratoire yi ñu dajee fi nag ginnaaw bi ñu toppee processus bi ba ci cëppaandaw gi ngir wane ne ñii kat ay na yewén remplir nañ critères yépp pour ñu agréer leen ñoom ñu mën a wuutu état fu état mënul yegg ci tënk euh, loolu rek lay firndeel Eh, loolu nag dafa méngook lii nga xam ne mooy gis-gis ak bëggu bëgg-bëggu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xam ni dafa bëgg saa su nekk eh, ñiy jub di jubal waaye tamit di jubbanti te loolu nag eh, dafa nekk lu war ci li nga xam ne mooy ci lu jëm ci wàllum tabax waaye tabax bi dafa am lu mu war a àndal mooy mu doon lu mucc ay maanaam qualité yi nga xam ne soxla nañ ko ci qualité yi nag du ci tabax bi waaye dafay dooree ci conception bi matériel bi exécution bi suivi bi maanaam lépp ca njëlbeen ga ba ca ca cappaandaw ga dañ ko war a saytu yàlla def nag am ñoo xam ne fii ci suñu réew am nañu xarañteef bi am nañu moyen yi nekk ay laboratoire yu ko mën a def moo tax ñuy woo d'abord suñu ay collègues ministres wax leen que ni ñoom ñëpp incha allahu rabbi nañu fexe ba lépp lu ñu defate lu jëm ci wàll boobu ñu associé ci LNR BTP et yaakaar naa ne président de la république aussi jàppale nañu ci euh, kon euh, dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñu sant LNR BTP moy muy fexe bay saytu waye di ah li nga mo jëm ci laboratoire d'essai yi ah, ci manam suis ba résultats de qualité yu mucc ay yu crédible tamit ba ci seen concurrence déloyale bañ ci am ñu même niveau nga xam ne ku ci nekk yaakaar naa ne ci xarañteef la ñuy courser waaye du doon ci leneen euh, mais aussi euh, dafa war a nekk loolu ñuy wooye référent technique tey lépp loo xam ne ëlëm na ñi nekk ci milieu bi dañu war a retourner wu replier wu vers LNRBTP waxtaan ci ak ñoom ngir trouver des solutions euh, waaye dafa war a fexe aussi moom muy garantir li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ñu koy def ci walum euh infrastructure wala bâtiment yi euh ci walum construction kon nak euh dañ leen ci ñaax ngeen jouer pleinement seen rôle euh ci accompagner laboratoire yi waye tamit ci xëc ñeneen ñi nga xam xeyna xëy ñëwaguñu pour ni certifier leen parce que xamna naa ne demande bi bëri na jàpp naa ne di tuuti na ma seen chiffre d'affaires nag mais yaakaar naa ne war nañu am lu ko ëpp ci ay laboratoire ngir mën a matale fépp